abonné wu leen ci Buzz Media TV la seen des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne abonnez-vous. Buzz Media TV boo ko internet yi nga xam ne yéenay teewlu Buzz Media TV dal leen jàmm dañu lay invité nga dal di abonné bu dee da nga ne ci ndëm bi te abonné go

maanaam defet bi nga xamante ci ni mooy xaar état bu réewum Sénégal yàggatul li ci des nag moo di opposant yi dal di jug xam ne Ousmane Sonko mii moo gën a taxaw pour jël réewum Sénégal ñu jàppal seen biir kàddu yi Ousmane Sonko message am bi mi ngi commencé di def effet waaye nag avec buzz médiatif yi dara du la ci ëmb abonné wul ngir dara bañ laa raw Sonko 2024 incha allah